mais yaakaar naa ne ministre de la santé weesu na fu muy gédde ay réunion parce que niveau de responsabilité bi mu toll euh, permettre ko euh, muy gédde réunion mais li ñu mënu la nangu muy moom muy ñun ñii di liggéey ak moom mooy ñuy waxtaan ak ay syndicat ñi nga xamante ni seen président dafay taxaw di wax ak ministre bi ci kàddu yoo xamante ni tegginewul loolu je pense que man mii nga xamante ni directeur laa ak sama yeneen naataangoo yi fa toogoon rafetlu wuñ ko te ministre bi décision bi mu ci waroon jëlit jël na ko ci donc loolu yaakaar naa ni euh, ku nekk si ñun euh, da nga koy natt ci sa bopp rek parce que waxtaan ak syndicat yoon la ministre daf ko yàgg doxal te yiñ ko jot a waxtaanal ñëpp amuñu ci benn problème waxtaan nañ ba réunion bi jeex te amul benn kàddu bu fi yëkkatiku wala benn xol bu ci jóg donc aujourd'hui fédération bi mu ñëwee toog dafa war a nekk ci dynamique boobu noonu pour jéem ñu jéem a trouver ay solution pour stabilité secteur bi fi mu toll nii li ci des mooy tànnaat beneen bés ñu toog waxtaanaat mais bu koy tànnaat itam fédération bi day ñëw taxaw taxawaayu respect taxawaayu cër bi nga xamante ne dañ ko war a jox ministre de la santé waxtaan boobu noonu mën a am mais tëjuñu benn buntu dinañ woote waat ñu toog waxtaan waaw ñun ñoo waxtaan nañ ak ñoom semaine bii ñu génn euh, ci poñ yu bëre am na yoo xamante ni d'accord nañ ceeg ñoom yaakaar naa ni poñ yi ci des mooy yi nga xamante ne ci wàllum payoor gi la te loolu euh, ministre de la santé ci boppam jëloon na engagement pour euh, faciliter leen rendez-vous avec le ministre des finances te yaakaar naa ne dinañ ko am ci lu yàggul dara grève bi ñu dëgmal nag ñoom euh, ci seen plan d'action la bokk ñun dañ leen koy nangul ba pare respecter loolu itam donc euh, mais man njort naa ni ci njort bu rafet que ñoom dinañ am ak ñoom léegi benn buntu bu ñuy permettre ñu génn ci lii nii